billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ok assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan sunu borom subhanahu wa mu boole ñu baal te nangul ñu ñuy jéggalu bu baax a baax euh, di ñëwaat ak yéen ci seen téereb al imaamul axdari ñu jàngoon suñ bund bi weesu nag faratay julli ak euh, sunnay julli ak lenn ci atee ca aju woon tey nag muy ñëw ci loolu ñu nekkoon ba léegi muy wàllu julli waaye tey nag muy wax ci ay ngëneelam ngëneeli julli lu kon leeratoon leeraloon na farata ya ak sunna ya ngëneel nag moom euh, tekki ne bu ñëwul julli da dul baax waaye nag mooy li nga xam ne euh, mooy rafetal julli gi boo amee ci julli gi day tax julli gi gën a taaru gën a mat moo tax ñu koy tuddee ngëneel bàyyi ko du tax yàq julli ga waaye def ga it dana tax julli ga gën am jëmm gën a taaru nga xam ni kon luñ sopp la ci lay ñëw tey mu ne wa fadailuha ay ngëneelam raful yadayni mooy yëkkati ñaari loxo inda inda al fa armal ba xatta tuqaabila ba ñu jàkkaarloog al uznayni ñaari nopp ya nee na ngëneel yi ba ci njëkkalim mooy booy kabar kabaru armal loolu leerloon nañ ko ca ba ñuy wax farata yi ñu ne booy kàbbar kàbbaru armal dangay yëkkati say loxo bam tolloog sa ñaari nopp na ba ca kaw mbagg ya yëkkati googi nga yëkkati say loxo booy tàmbali tam bu julli gi ca kàbbaru armal ba yëkkati googi nee na ngëneel la luñ sopp la waaye nag wax allahu akbar ga ngay moom farata la loolu nañ ko waaw waaye nag booy wax xam nga da ngay yëkkati say loxo yëkkati googee nga yëkkati say loxo la bëgg a wax ne euh, luñ sopp la maanaam la waaye wax ga allah akbar moom euh, loolu farata la mënta ñàkk tey nga xam ne kon boo yëkk boo wàccee woon say loxo wax allah akbar ba ngay tàmbali du tee mu baax waaye nag li gën a rafet nga xam ne ngëneel la euh, mooy nga yëkkati say loxo ba mu tollook say nopp bu ko defee mu ànd ak allahu akbar foofu doo wax allahu akbar ba pare doo ko yëkkati say loxo doo yëkkati say loxo ba wàccee ko doo ko wax allahu akbar bi nga ko yëkkatee ba mu tollook say nopp ci foofu ngay wax allahu akbar doo ko wàccee nga xam ni dañuy ànd mook armal bi dañuy ànd mook kàbbar bi dañuy ànd ñaareel bi ñu leeral mooy góor ak jigéen ñoo ci yem euh, jigéen da koy def mu yëkkati loxo yooyu góori da koy def mhm. bu ñaareel bu ne mu ne waxawlul maamuum yi ak waxu maamuum wal faddi ak kenn wal faddi ak kenn rabbana yow sunu borom wala ka ñeen na la alhamdu cant rabbana walaka alhamdu mu ne maa moom mooy koo xam ne dañ ko jiite ak kenn kuy julli nga xam ne kenn jiitewu ko ñoom ñaar it buñ siggee ci dañoo war a wax rabbana walaka alhamdu maa moom mooy ki nga xam ne dafa nekk ci gannaaw ilimaan ñu di ko jiite kooku bi bu imaam waxee sami allahu liman xamida moom dafa war a wax rabbana walaka alhamdu rabbana walaka alhamdu jooji mu ne ngëneel la luñ sopp rek la bu dee kenn kuy julli kenn kuy julli moom sunna la ci moom mu wax sami allahu liman xamida bu ko defee it gannaaw loolu ñu sopp ci moom mu wax rabbana walaka alhamdu nga xam ne moom kon ñaar yëpp lay wax kenn kuy julli bu dee ki nga xam ne nag moom dañ ko jiite moom rabbana walaka alhamdu rek lay wax bu ko defee imaam moo naan sami allahu liman xamida sami allahu liman xamida limoon nañ ko ca sunna ya waaye rabbana walaka alhamdu nag moom ngëneel la luñ sopp la te kenn kuy julli moo koy def ak maamum mooy ko xam dañ ko jiite kenn kuy julli nag nga jàpp ne ñaar yëpp lay wax sami allahu liman xamida waxit rabbana walaka alhamdu bu dee yow rekk yaay julli kenn jiitiwu la wattaaminu ak wax amin bandal fatixati ci gannaaw fatixa lil fardi ñel kenn wal maamoom yi ak maamoom nee bokk na ci ngëneel yi euh, bu ilimaan jànge fatixa ba wax wala doolin bu ko defee yow maamoom bi koy dégg nga wax amiin mhm. bu nit kenn kuy julli nga xam ne yow rek yaay julli kenn jiitewu la jiitoo kenn boo jàngee faatiha ba wala doolin nga neel la nga wax amiin jëmmi faatiha bi moom nga jàng ko farata la loolu waxoon nañ ko ca farataay waaye boo waxe boo waxee wala daalin nga wax amiin amiin boobu la wax ne la ngëneel la luñ sopp la ci julli gi maa moo koy wax muy kuñ jiite wala kenn kuy julli comme noonu ñu ko leerale wala yaquluha du ko wax al imaamu imaam illa fi qiraati sirri ndara ci njàngum yelu njàngum yelu moom bu dee imaam bu waxee wala daalin xam nga kenn du ko dégg moom mën naa wax amin ci suuf waaw ndax bu dee lu mel ni ay tisbaar rakusaan walla rakkaab timis bu mujj ba wala ñaar rakkaay gee yu mujj xam nga foofu fatiha bi da nga koy jàng ndànk kenn du la dégg moo tax yow imaam ci boppam boo waxee wala daalin ngay wax amin bu dee ci julli goo xam ne dañ koy yellu mooy dañ koy jàng ndànk waaye bu dee julli boo xam ne dañ koy jàng ca kaw moom nga xam ne boo waxee wala daal leen dañ koy dégg maam maanaa maanaam ña nga jiite ñooy wax amiin waaw hmm. wa ak sàbbal ga fir rukoo yi ca rukoo bokk na wa sujjóoti ak sujjóot wala wa duxaaw ak ñaan fi sujjóoti ci sujjóot ak tasbihu fi rukoo mooy sàbbaal ci boo rukooxee loolu it nee na luñ sopp la jëmmi rukoo bi ci boppam moom sëgg bi nga sëgg jàpp ci say bëtiwoom farata la loolu leeraloon nañ ko ba tey waaye nag subhaana rabbiyal azim ba ngay wax loolu mooy sàbbaal ga loola moom nee na luñ sopp la donte ne sara sax foofu subhaana rabbiyal a'la la fi wax wala subhaana rabbiyal azim waaw booy booy booy booy rukon subhaana moom ngay wax ñetti yoon subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal moom ngay wax ñetti yoon subhaana rabbiyal boobu ngay wax moom la la bëgg a wax ne ngëneel la luñ sopp la du farata du sunna boo sujjootee nag nga wax subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la ñett yoon comme noonu moom it luñ sopp la jëmmi sujjoot bi moom wala rukoo bi farata kenn ku nit ñoom faratal la waaye nag sàbbal googee ngay sàbbal lañ wax ne ngëneel la nga xam ne léegi lañ cay dégge mooy boo rukoo woon waxoo dara bam neex la nga siggiir du tee kon baax na waaye li ma la waxoon ne la léegi day rafetal julli gi foofu mën nga ko fee dégg parce que fi mu doon nii rukkoo waxoo dara ba mu neex la nga sigg loolu fi mu doon nii euh, yow mi koy def sax danga xam ne lii lu ñàkk xorom la wa tatwilul doxaaw boobu mu wax nag ñaan boobu mu mujj dolli mooy wa doxaaw ak ñaan fi sujud euh, dafay wax ne sujud sopp nañ ko fa ñaan waaw ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko waxoon ne bu leen di sujjootee na ngeen farlu ci ñaan waaw ndax loolu euh, fi nga sujjootee fi ngay jege gën a jege suñu borom foofu yaakaar nañ ne euh, yaakaar nañ fa ak nag mu ñaan dal dégg faj taxidu fi fi du'aa yi waa ma sujuudu fajtahidu fi dafa wax ne wa amma sujuudu fajtahidu fi duaai fa qaminun an yustajaaba lakum mhm. euh, kon sujuud moom moo tax ñu am ñu ñu ciy dolli subhaana rabbiyal a'la allahumma xfir li waaw allahumma xfir li mooy yàlla yàlla nga ma jéggal kon foofu ñaan nga fa kon boo fa ñaanee ñaan googu luñ euh, sopp la ngëneel la Euh, wa tatwilul qiraati ak guddal njàng ma euh, fi subhi ci suba nee na bokk na ci ngëneel yi bu dee jullik suba nga guddal njàng ma maanaa nga jël nga jàng ca njàng moo xam ne njàng mu yàgg la maanaa julli yàgg rek lañ bëgg waaw nga jàng ca njàng moo xam ne njàng mu yàgg la bu dee ay saar ngay jàng nga jàng ca saar yu gudd bu dee ne ay aayaat ngay jàng it na jëloo saar nga jàng ca it aayaat yu bari nga xam daal taxawaayee dana yàgg mhm. saraa bi nag dafa wax ne moom saar yu gudd yi euh, mën nga caa tàmbalee fi ñuy wax suutul xujuraat euh, mën nga cee tàmbalee suutul xujuraat saar yi nga xam ne euh, maanaam mën ngaa tàmbalee suutul xujuraat ba xabasa loolu nee na dañoo jàpp ne saar yu gudd la boo ci jël baax na li commencé abasa ba wadduxaa dañoo jàpp ne saar yu diggu doomu la li commencé wadduxaa nag ba sóoratul naas ba kaamil bi jeex dañoo jàpp ne saar yu gàtt la mhm. kon dañuy bëgg bu dee lu mel ni suba nga jël saar yu gudd nga jàng ko ndax taxawaay ya am ab diir wa zuhru ak tisbaar wa dana ko méng neena it bu dee tisbaar bëgg nañ mu xaw a gudd maanaam mu gudd waaye bu mu yegg nag ci ci suba maanaam saar ya nga jàng ci suba na gën a gudd saar ya nga jàng ci tisbaar dégg nga waaye tisbaar it dafa laa bëgg a wax ne day xaw a gudd comme suba waaye nag suba mooy gën a gudd maanaam ni ñuy gën a guddee daal jàppal ne suba moo jiitu tisbaar topp ci loolu bëgg a wax wa taq siiruha aku gàttalam fi ci tàkkusaan wal maxribi ak timis nee na bu dee tàkkusaan ak timis nag Euh, dañu bëgg nga gàttal njàng ma <clears throat> maanaam nga jàng ca saar yu saar yu guddul saar yu gàtt waaw nee na loolu it ba tey ngëneel la bu dee ci tisbaar ak maanaam bu dee ci takkusaan ak timis saar yu gàtt yi nag nee na la woon li commencé Wadduha ba naas yi jàpp nañ ne dafa gàtt wa tawassutuha ak diggu doomam mu ne wa tawassutuha ak digg doomam filin hmm. saa mu ne ak digg doomam fil incha fil incha yi ci gee bu dee gee dañu bëgg mu digg doomu maanaam mu bañ mu bañ a gudd comme li mu waxoon léegi nag dama daggoon wax ji waaye bu dee tisbaar moom wala takusaan ak timis moom dañu bëgg jàng ca waddu xabanaas muy saar yu gàtt yi bu defee dee gée nag moom dañu bëgg mu digg doomu neena na la woon li commencé abasa ba waddu xaa dañoo jàpp ne dafa digg doomu ak mhm. donte am nañu wax laneen it ci lim indi gée dañu bëgg mu digg doomu bañ a gàtt waaye it bañ a gudd maanaam bañ yàgg waaye lu digg doomu rek lu nekk ci diggante tisbaar jam la waxoon ne day gudd ak lu nekk ci diggante tàkkusaan jam la waxoon ne day ah, ah, muy nekk as suuratu way aji njëkk ah, at wala di gën a gudd wala foofu daa mel ni indiwul kii bi ci topp waaw al ula way ji njëkk xabla saaniyati di njëkk aji ñaareel ja mhm. al ula way dafa bokk ci ngëneeli julli mu aju ca njàng ma ba tey saar wa nga xam ne moom nga njëkk a jàng mu jiitu saar wa nga mujj a jàng waaw ah. xam nga alxuraan dafa am nu mu tegaloo saar yi boo commencé baqara ba naasi dafa am nu mu tegaloo saar saar wi mooy ñëw saar wi topp ca saar wi ñëw saar wi topp ca dégg nga dañuy bëgg noonu mu tegaloo it booy jàng mu même bu tegaloowut noonu it wa nga jë wa moom na jiitu ci niñ tegalee kaamil bi waa nga mujj a jàng waaw tey fi mu toll nii tey bu doon danga bëgg a jàng falaxi ak naasi ci sa ñaar rakka dañu bëgg rakka bu njëkk ba nga jàng ca falaxi suratul falaxi rakka bu mujj ba nga jàng ca suratul naas dégg nga loolu la ñu bëgg waaye tey duñ bëgg nga ñëw sa bu njëkk ba nga jàng ca suratul naas rakka bu mujj ba nga jàng ca suratul falax kon bu boobaa dangaa def li ñuy wax ak tankiis tankiis mooy róomale maanaam ñaari saar ni mu tegaloo tegaloo ko noonu waaw rakka bu njëkk ba da nga sa jàng saar wu mujj rakka bu mujj ba nga jàng ci saar njëkk loolu dañ koo dañ koo sip dañuy bëgg rakka bu njëkk ba nga jàng ci saar wu nga xam ne buñ doon xool moo féete kaw ci kaamil bi niñ tegalee rakka bu mujj ba nga jàng ca maanaam ñaareel bi rek nga jàng ca saar woo xam ne dañuy xool ni boo niñ tegalee ci kaamil bi moo mujj saaroo nga njëkk a jàng comme ni ma la ko misaale rek ci sootul falax ak sootul naas dañu bëgg kon ni mu tegaloo ci kaamil bi rek mu tegaloo noonu pas mu tegaloo sax nga xam ne tey boo jàngee suutul falax forcément dañ cee war teg suutul wala tey boo jàngee suutul ixlaas wala suutul masad eh, forcément dañ cee war a teg suutul ixlaas déedéet mais boo jàngee suutul masad mooy tabbat yada ba mu jeex ci rakkaa bu njëkk bi dañu bëgg rakkaa bu mujj ba benn moom nga teg ci suutul ixlaas muy xul wallaahu ahad wala xul a'uuzu bi rabbil falaq wala xul a'uuzu bi rabbin naas xam ne waaye tey rakkaa bu njëkk ba nga jàng ci suratul masad rakkaa bu mujj ba nga wëlbati ko yéegaat ci kaamil bi dem ci saar woo xam ne moo ko jiitu loolu lañuy ñuy bañ waaw boo ko defee du yàq waaye def nga duñ sib wa yukrahu tankiisu fil madhabi masab malik dafa sib loolu mhm. wa at wala tey gën a gudd min ci moom waaw tey it loolu it nee na luñ ci sopp la mooy saar wi nga xam ne moom nga njëkk a jàng dañuy bëgg mu mu gën a gudd saar wi nga mujj a jàng waaw saar wi nga njëkk a jàng dañu bëgg mu gën a gudd saar wi nga mujj a jàng kon dañuy bëgg saar wa nga njëkk a jàng ca rakkaab bu njëkk ba boo ci jàngee saaru gudd sa euh, rakkaab ñaareel ba nga jàng ca saaru xaw a gudd te bañ a gudd comme mel waaw bu dee danga caa jàng saaru gàtt rakkaab bu ñaareel ba nga jàng ca saaru gën a gàtt waaw kon dañuy bëgg saar wa njëkk gën a gudd saar wa mujj nee na loolu it ngëneel la lii mu lay wax lépp ngëneel la maanaam boo ko bàyyi woon def la kii it du tax mu yàqu mhm. euh, nee na loolu nag ci julli yëpp la moom waaw saar wa nga njëkk a jàng moom toujours dañuy bëgg mu mujj mu gën a gudd saar wa nga mujj jàng mhm. Mhm. mu ne wal hay atu ak melo al maalumati wadi al maalumatu wadi wuñ xam fir rukoo yi ci rukoo wa sujoodi ak sujood wal juloosi ak jataay ba Euh, fee it euh, ñu doon leeral léegi ci guddal geeg fi ñuy gàttal ak yu demee noonu loolu am na lu ci saraa bi wax ci al imaamu nawawi indi ko ci xikma bi tax julli yee ñu ne la nanga ko gàttal julli yi nanga ko kii euh, maanaa tey fi mu toll nii boo jëlee lu mel ne suba daf laa waxoon ne nag gudd parce que nee na ak tisbaar ndax nee na loolu moom di ci ëpp nit ñi dañuy sàggan ci waxtu nelaw yi muy nekk nga xam ne euh, ci mujj guddi gi mooy fajar nit ñi dañuy sàggan nga xam dañuy nelaw moo tax dañuy bëgg jàng ma gudd ndax ñu xaw a am cawarte tuuti bu dee tisbaar it gis nga ko ñoom it daanaka waxtu noppalu la woo xam ne euh, nit ñi dañuy xaw a ñi ñi sieste gi ñu demee noonu dañuy nelaw léegi nag bu njàng ma guddee ah, mën naa am ñu ko fekkee kuñ rawoon ku ku ku yéexe daal xëy na mën nga ko fekke mhm. ah, lu mel ni ne takkusaan ñu wax ne ne danga ko gàttal dañ koy gàttal parce que nee na moom nit ñi dañuy sonn wax ah, da ngay ne bëccëg bi yëpp dañoo dañ doon liggéey daanaka heure boobu dañuy sonn lu mel ne timis ñu ne danga koy gàttal ba tey it moom it waxtu wi dafa gàtt mm, waxtu wi yaatuwul bu dee lu mel ne gee noonu ndax waxtu la woo xam ne nit ñi dañuy sonn commencé gëmmentu bëgg nelaw bëgg noppalu ba tax it moo tax ñu ne la day digg doomu wal xayaatu melawa ak melawa almaalumatu wati wuñu xam fi rukoon ca rukoo ma sujjóot ak sujjóot wal julus ak nee na bokk na ci ngëneel yi melaw wi nga xam ne ci ngay joxee bi ak sujjóot bi ak jataay bi jëmmi rukon waxoon nañ la farata la sujjóot waxoon na la farata la siggi ci sujjóot moom it waxoon nañ la farata la waaye nag ni koy defee melaw yi waaw rukon dafa am nuy rukon yi nga xam ne léegi da sëgg ba yemoo nga xam ne doo sëgg ba mu ëpp doo siggi ba ëpp waaye day yem sa gannaaw gi ci boppam day jub kocc nga xam ne buñ ci sotti woon ndox moom benn day daanu katan day joor wala côté càmmoñ waaye du jaan daanoo ca du du du sotti ko ca côté bopp ba wala côté gannaaw bu ko defee nag nga jël sa loxo yi jàpp ko ci sa bëti woom bu boobaa def nga li ñuy wax ruko melo woowu comme nga defee ko noonu nga jël sa bët yi teg ko fi nga xam ne mi ngi fi ngay sujoote kon noonu la ñuy sujoote nañu la ñu ruko yi laa bëgg a wax sujoot da ngay jël sa ñaari loxo yi nga teg ko ci suuf jël sa jë ak sa bakkan teg ci suuf jël sa ñaari bëtiwoom yi teg ci suuf jël sa ñaari cati ndëgg yi teg ci suuf muy juróom-ñaari cër boo ci boolewut jëba ndax su jot ak jëbi moom farata la loolu waxoon na ko waaye boo jëlee sa bakkan ak sa ñaari loxo ak sa ñaari maanaam sa ñaari loxo liñ bëgg a wax it mooy tenq yi ak sa ñaari bëtiwoom ak sa ñaari cati ndëgg loolu juróom-ñaari cër la nga sujjoote noonu yi ci melaw wii mooy luñ sopp melaw yi waaw jëmmi sujjoot bi moom farata la eh, ak jataay bi ni ngay tooge nga xam ne léegi dangay toog eh, lem say tànk dégg nga bu ko defee tànkub eh, ndeyjoor bi dañuy bëgg mu sampe waaw nga xam ne tànk maanaam baaraam bu mag bi nii day samp waaye nag bu ko defee jëmmi euh, tànkub càmmoñ ba nag moom day tàllalu te nga bañ caa toog mu tàllalu génne côté ndeyjoor ba waaw bu defee nga jël sa loxo it bu dee loxo càmmoñ bi nga teg ko ci sa lupp yi te nga tàllal ko loxo ndeyjoor ba it nga teg ko ci sa lupp yi banque baaraam yëpp ba mu des baaraamu sànnikaay bi boobu moom moom nga yëngal noonu melawoo wi luñ sopp la ci ni ma ko leerale ci rukoo ak sujjóot ak jataay ba wal xunuutu ak xunuut sirran ci yellu wal xunuut ak ci yellu bokk na ci ngëneel yi xunuut xunoot ah, nga ni mana maanaam luñ sopp rek la ngëneel la mooy ñaan ko gi ngay ñaan ci ah, ñaan googi ngay ñaan ci ñaar raak loolu daan ko leeral sax mooy waxu wax xunóotu xunóot seetaan ci geelu xabla rukon njëkk rukon mhm. wa baax da suurati ak ci gannaaw saar wa fii saaniyatu subi ci ñaareelu suba Mhm. waaye joosu daana dagan nag baax daru ko ci gannaaw ru ko waaw kon mi ngi noonu xunut euh, lu ngëneel la mooy ñaan gi ngay ñaan ci gannaaw rukkoo walla ci avant ngay rukkoo gannaaw gannaaw saar ci ñaar rakkaay suba maanaa booy julli suba ñaar rakkaa lay doon rakka bu njëkk ba bu jeexee rakka bu mujj ba moom it boo jàngee fatiha jàngu saar ba saar wa jeex laataa ngay rukkoo foofa ngay xunóote doo ko dem rukkoo am na ñu ne nag mën nga ko def gannaaw boo mën ngaa jàng saar wi dem rukkoo directement boo siggee laataa ngay dem di maanaam mën ngaa jàng saar wi dem yi directement boo siggee laataa ngay dem di nga def ko am na ñu wax loolu waaye li gën a siiw moom mooy boo jàngee faatiha jàngu saar laataa ngay dem di rukkoo nga xunóot boo xunóotee ba pare doo ko dem rukkoo dégg nga bu mujj ba ci ñaar rakaay suba euh, mooy allahumma inna nasta'inuka ba mu jeex allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika ñaan googu mooy jàng ko ba mu jeex loolu mooy xunóot bul jàpp ne bu ñu mooy baatu xunóot nii rek nga xam ne da jàng saaroo ba jeex nga ne xunóot daal di euh, ak ñaan la goo xam ne danga koy jàng ba mu jeex boo xoolee téere yi indi nañ ko ñaan googu yi nga jàng ko ba mu yegg moom it nee na ngëneel la waaye nag nga nga nga nga seetlu mu la ko leerale waaw mooy ci jullik suba lañ koy def kenn du ko def ci yeneen julli yi ñaareel ba mooy ca ñaareelu rakkaa lay nekk mooy rakkaa bu mujj ba rek dégg ñetteel ba mooy laata ngay rukon yi nga koy def gannaaw boo jàngee saar woo ba pare laataa ngay rukon yi nga koy def am na ñu ne nag mën ngaa rukon ba pare doo ko def laataa ngay sujjooti foofu la nga fay dégg rek mooy kon tey boo ko fàtte woon ba rukon boo siggee mën nga koo def laataa ngay dem di sujjoot mën nga faa ruko mën nga fa mën nga faa Mhm. Euh, bëri na ay wuute torop nag waaye bi ci gën a siiw daal mooy maanaam bëri na ay baat yu ci yu ci yu ci rot waaye bi ci gën a siiw mooy ne allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu laka wa naxnaa wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu euh, narju rahmataka wa naxaafu adabaka al jidd adabaka bil kafirina mulhiq bëri na ay nettali nag ndax boo xoolee sara bi dafa wax ne allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nathni alayka wala nakfuruk version boobu bokk rek bi ma njëkkoon a wax mhm. wa naxla'u wa natruku man yakf man yaf man yakf man yakfuruk mhm. ne allahumma iyyaka na'budu wa laka nusallimu wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu wa nakhsha 'adabaka al-jidd gis nga fale dañoo njëkkoon a wax narju rahmatak wa naxaafu 'adabaka al-jidd Mhm, bëri na ay ay wuute waaye daanaka day mel ne daanaka boo ci mokkal moom daal dinay doy mhm. lisra bi wax bëri na ay version ay waxin yu ci ñëw kon xunóot moom yi ci ñaar rakkaalu ci ñaar ci ñaareelu rakkaab suba ca gannaaw saaro nee na kon ngëneel la wa duwaaw ak ñaan baada tashahudi ca gannaaw taaya ja ak thaani ja aji ñaareel nee na it bokk na ci ngëneeli julli euh, taaya euh, ci gannaaw taaya ci maanaam ñaan ci taaya ji mujj ja dégg nga ji mujj ja dañu bëgg boo taayaa ba jee bam jeex waaw ba taay ji jeex nga xam def nga salaatu ala nabi ba mu jeex bu ko defee nag euh, nga ñaan fa laataa ngay sëlmal dañu bëgg nga ñaan hmm. ñaan ga nag moom ñaan goo man baax na ak donte ne saraa bi am na bu ñaan bu mu indi waaye ñaan goo ñaan baax na euh, na nga ñaan rek ci gannaaw taay ju mujj nag nga koy def taay ju mujj ja laata ngay sëlmal hmm. euh, moo tax mu ne yustahabu lil musalli ay yadahu aqiba tashahudil axiir wa al ibrahimiya boo taayaa ba taaya jeex dégg nga nga julli ci yonante bi ba mu jeex bu ko defee nag nga ñaan nee na loolu ñaan googi luñ sopp la luñ bëgg la mhm. mu jàll wa yakoonu tamit nekk at tasahudu taay ja ak saani ja aji ñaareel at wala di gën a at wala di gën a gudd minal awali ca ji njëkk ja ca ju njëkk ja nee na it bëgg taaya ju njëkk ji gën a gàtt taaya ju mujj ja manaa kon taaya ju mujj ja gën a gudd taaya ju njëkk ja xam nga julli dafa mën a am ñaari taaya waaw boo génnee suba yeneen julli juróom yëpp dafa am ñaari taaya taaya ju njëkk ja mooy boo amee ñaar rakaat jataay boobu ngay toog ak boo taa bu julli ga jeexee jataay boobee ngay toog dégg nga jataay jataay ñaar jataay la am taaya mooy jataay yi rek nee na jataay bu mujj ba nag mooy gën a gudd jataay bu njëkk ba ba nga amee ñaar rakkaat jataay ba nga toogoon mooy gën a gàtt ndax jataay bu mujj ba moom day am euh, taaya mooy attaxiyaatu ba mu jeex am salaatu ala bi mooy julli ci yonante bi ba mu jeex am ñaan góog yi ñu la waxoon léegi ne la luñ sopp la kon dangay gis ne moom mooy gën a gudd nee na loolu it luñ sopp la ndax lañ cey jàng moo gën a bari waaye daal eh, gannaaw ba lañ cey jàng daal moo gën a bari rekk moo war a gën a gudd daal ngëneel la mhm. wattayaa munu akuk nday jooru bis salaami ci sëlmal ba dafa bokk ci ngëneeli julli booy sëlmal nga wax asalaamualeykum wala kon daf bokk ci ngëneeli booy sëlmal nga nday jooru mooy nga walbati sa bopp bi mu jublu euh, sa côté nday joor ñu ko saraab bi ma koy booleel di yër mooy tax njuumte yi di xaw a bari nga ngay bëgg a wax lii dem wax le kon ngëneel la booy wax asalaamaaleykum asalaamaaleykum moom waxoon nañ la euh, farata la mënta ñàkk waaw waaye nga nga wëlbati côté ndeyjoor mel ne kuy kuy kuy kuy gestu ni waaw gestu côté ndeyjoor bi waaw gestu boobu yi ngay gestu maanaam wëlbati boobu yi ngay wëlbati sa bopp bi côté ndeyjoor cëb sëlmal bi nee na loolu ngëneel la waaye jëmmi sëlmal bi moom asalaamaaleykum loolu farata mënta ñàkk ci julli mhm. Mhm, mooy kon watta yaamunu ak ndeyjooru bisalaam ci sëlmal ba wa taxriiku sabaaba ak yëngal baaraamu sànnikaay ba fi tasahudi ci taaya bokk na ci ngëneeli julli booy taaye sa baaraamu sànnikaay bi mooy baaraamu bi nga xam ne moo nekk ci baaraam ñaari ba baaraamu dëy bi bi ci topp rek nga moom la ñuy wax baaraamu sànnikaay ne tey booy joxañ ci ngay joxañi baaraam boobu yi dañu bëgg booy taaye nga teg ko ci sa lupp yeneen baaraam yi nga bank ko waaye baaraam boobu moom nga tàllal ko di ko yëngal nee loolu yi ngëneel la am na ñu ne it danga koy tàllal noonu rek waaye du jar yëngal mooy waxiila laa yu xarrikuha am na ñu ne jëru yëngal waaye danga koy tàllal bëri na nag ay wax yu ci ñëw lan moo tax ak lan mooy ikma beeg yu demee noonu loolu am na ci ñetti wax yu ci indi waaye daal ngëneel la nga bañ koo bank nga tàllal ko benn nga yëngal ko walla nga bàyyi noonu mu tàllal lu rek mhm. wa yukrahu def na sib al iltifaatu gestu fi salaati ci julli mhm. fi salaati ci julli geestu ci julli waxu la jëmmi geestu nii nga xam ne euh, dafay nekk nga xam da ngay wëlbatiku xool ku la féete càmmoñ wala ku la féete maanaam da ngay wëlbatiku xool ku nekk sa gannaaw loolu moom du mooyu la loolu boo ko defee julli ga yàqu na waaw gannaaw ba daf laa waxal ngëneel ya maanaam léegi nag day tàmbali di la wax euh, yi nga xam dañ koo sip sip mooy nga bañ ko boo ko defee ci julli gi du yàqu waaye nag nga bañ koo def moo gën waaw mooy safaan safaanum ngëneel ngëneel mooy loo xam ne boo ko bàyyee du yàqu waaye nga def ko moo gën buñ ne dañ ko sib nag mooy loo xam ne boo ko bàyyee moo gën waaye boo ko defee du yàqu ñaar dañoo safaanoo kon julli di geestu buñ ko waxee mooy di xool di benn bëtu koo xam dafa nekk sa côté ndeyjoor wala koo xam dafa nekk sa côté càmmoñ waaye nag bu dee da ngaa xibla moom waaw nga xam ne yow xibla bañ la bañ la waxoon jublu fa léegi da ngaa jubloo fa kon kooku moom tase nañ ci ne ak julleem moom yàqu na faaw daf koy daf koy dagg euh, kooku daf koy dagg waaye bu dee dafa xaw a geestu nii rek côté ndeyjooram wala côté càmmoñam ne loolu ci boppam lañ sib Mm-hmm. mu teg ci wa taamirul ni ak gëmm ñaari bët waaw di julli di gëmm say bët ba tey nee na loolu dañ koo sib dañu bëgg boo julli ngay xipp di xoole mm-hmm. ngay xipp di xoole say bët lu dul ne nag ngànt ko waral waaw lu mel ni ngelaw lay bëri wala day metti moom bëri wala sax danga bañ xool lu xaraam wala yu demee noonu kon fu demee noonu moom danañ duñ duñ la teer maanaa duutuñ ko sib waaw wala maanaam jant bi leer naññ ba say bët di ca metti wala yu deme noonu moom bana dal bu dee ngànt ko waral moom nga gëmm ko duñ ko bañ bu dee ngànt waralu ko ngay gëmm nii rek te dara waralu ko loolu dañ koo sip mu ne wal basmalatu ak wax bismillah al basmalatu mooy wax bismillahi rahmaani rahim neen loolu it ci masab Maalik neen dañ koo sib wa taawuzu ak wax auzu billahi min asheytaani rajim fil faridati ci farata wax bismillaahi rahmaani rahim ci booy ubbi ci faatiha nee na dañ koo sib ci masab bi waaye loolu moom euh, werante yi ci ñëw kenn xamu nu mu toll euh, saraa bi daanaka wax na ci lu mat ñetti paas yoo xam ne ci loolu lay wax euh, nee na wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim ci jullit farata loolu it nee na dañ koo sib kon nga xam ne moom boo sukkandikoo ci ay waxam booy tàmbali da ngay kàbbar kàbbaru armal wax alhamdulilahi rabbil alamin nga xam ne alhamdulilahi rabbil alamin ngay tàmbale waaye bu dee jullik farata la doo tàmbale auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim nee na loolu dañ koo sib ci jullik farata waaye jusaani ñu dagal nag fi nafli ci naafila nee bu dee naafila nag moom kenn sibu ko ca mën ngaa tàmbalee auzu billahi min asheytaani Euh, bismillahi rahmaani rahim bu dee ci jullik farata wala sax bu la neex nga ne aouzu billahi samil alim min asheytaan rajim dafay wax bismillahi rahmaani rahim tàmbali fatiha bu dee ci jullik farata nee na loolu moom bu dee ci jullik euh, la moom nee na loolu kenn euh, kenn sibb ko waaye bu dee jullik farata moom nee na loolu dañ koo sib kon yàqut julli ga ci boo ko defee waaye nga bañ koo def kon moo moom lañ tànn ci mazhab bi Mhm. wal wuquufu ak taxaw ala rijlin ci ab tànk waaxidatin bu di benn illaa ay yatula ndara ba dafa gudd dafa yàgg xiyaamuhu taxawaayam ba nee na it taxawee benn tànk nee na loolu it dañ koo sip waaw ndax loolu moom nee na ak ñaawal teggin la waaw nee loolu moom ak ñaawal teggin la taxaw jàkkaarloog yàlla di taxawee benn tànk nee loolu loolu ak ñaawal teggin la dañ koo sib euh, lu du ne nag ngànte ko waral lu du ne ngànte ko waral lu mel ne euh, tànk bale dafa am ay góom wala ay taab wala muy mett wala yu demee noonu euh, bu boobaa dañ ko bu dee dafa am ngànt moom bu boobaa kenn du ko sib waaye nag bu dee taxawut ba mu taxawee benn tànk xam nga da ngaa war a taxawee ñaari tànk bu dee da ngaa taxawee benn tànk léeg te loolu ngànt waralu ko loolu boobaa dañ ko sip hmm. euh, lu dul ne taxawaay ba dafa yàgg it waaw bu doon ngànte ko waral wala jëmmi taxawaay bi mooy yàgg ba ba ba ba nga sonn ci ñaar tànk yi taxaw benn tànk ba tey loolu moom euh, kenn du ko sib ba tey ak lënkale waqtiraanu euh, rijlay ak lënkale ñaari tànkam waaw sësale leen loolu ba tey dañ koo sib wala sax nga róomale leen ba tey loolu dañ koo sib mhm, bu dee góor dañuy bëgg mu xaw a sore la ay tànkam waaye tappale ko duñ ko bëgg ñaaral ba it mu róofale leen ba tey loolu it dañ koo sib mooy lënkare gi mu wax dañ koo sib mhm. wa jaalu dirhamin ak lu def lu mel ni ki ab dërëm aw xayrihi wala lu may moom fii famille ci gimiñam dégg nga nee def dara ci sa gimiñ bi ngay julli ba tey loolu dañ koo sipp waaw julli di julli jël xaalis def ci sa gimiñ wala jël dara lu dul ab xaalis muy laneen lu mu mën di doon def ci sa gémmiñ loolu nee na dañ koo sib ah, duñ bëgg dara nekk ci sa gémmiñ <clears throat> ba moo tax sax dañu bëgg bala ngaa julli nga soccu wala nga gàllaxndiku wala borosu wala sax bu dee njàpp ma it nga def ca loola loolu yaakaar naa li mën nañ ko ca ngënee li jàpp <clears throat> kon def ci ci ci sa gémmiñ dara wala ab xaalis wala dara daal dara moom lu ne lu ne dugg na ca bu boobaa nee na loolu it dañ koo sib wa kadalika nu ngi nuy nii la kullu lépp loo xam ne yu sawwisuhu dana ko jax-jaxee fii jay bi jaybihi ci poosam aw kummihi wala lafu mbubbam euh, aw ala zahrihi wala ci gannaawam nee na def dara ci poosam wala ay cati mbubbam maanaam loxo mbubbam walla gannaawam loo xam ne mën naa jax-jaxe am xelam nee na loolu dañ koo sip xam nga julli moom dana ko wax ci bunt bi ci topp euh, dafa am lum laaj muy ak wagar ak màggal euh, akuk tëyu ak kersa euh, ak ku ragal yàlla lépp loo xam nii nag mën na laa te def loolu moo xam loo def ci sa poos la muy yëngatu wala loo teg ci sa kanam muy rayi rayi wala loo taq loo loo def ci say loxo yi mbubb muy yëngatu di am biir wi moo xam ay caabi la wala suñu téléphone yi am ni mën naa sone yu demee loolu wala mu def ko ci gannaaw wala mu yore ko daal nga xam daal mën naa yàq am xelam ci julli gi mboolem lu demee noonu dañ koo sib waaw mboolem lu demee noonu dañ koo sib moo xam ab montar la bu mën a yàq am xelam wala téléphone la boo xam ne mën naa yàq am xelam parce que mën naa sone wala yu noonu ba ci montar yi am na ci yoo xam dañuy sone wala muy ay ceeb yu kalang langi walla ay per yoo xam ne dañuy yëngatu di mën a yàq ak julleem yooyu yépp euh, nee na dañ koo sib ci julli moo xam fu mu ko mën def nag ci poosam wala gannaawam wala lafi mbubam wala fu mu di doon bu dee mën naa mën naa jax-jaxe am xelam rek loolu dañ koo sib wa tafakkuru ak xalaat fi umuri dunia ci mbiri àddina wa kullu ma ak lépp loo xam ne yusxiluhu dana ko soxlaal anil xusuuhi walis ragal yàlla fi salaati ci julli ga waaw lépp loo xam daal mën naa yàq am xelam euh, ba soxlaal ko ba ragal yàlla ak màggal yàlla ak waggar yàlla gañ soxla ci julleem mën na caa bañ a am loola loola dañ koo sib waaw ak xalaat ci mbiri àddina ak yu demee noonu yooyu yëpp dañ koo sib loolu dana ko gën a leeral ci bunt bi nga xam ne moo ci topp kon mën nañoo yamali foofu ndax ngëneel li la la doon wax ak yi nga xam ne dañ koo sib ci julli ñu fàttali na ngëneel moom bu ñu ko waxee mooy loo xam ne boo ko defee moo gën bàyyi ko lu yàq julli gi waaye def ko moo gën mooy luñ sopp rek bu ko defee luñ sim nag mooy loo xam ne def ga du yàq waaye nag bàyyi ga moo gën mooy safaanum ngëneel gëneel def bàyyi gi du ko yàq waaye def gi moo gën kee nag def ga du ko yàq waaye bàyyi ga moo gën bu ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax euh, kon lépp lu ci jub ci borom bi subhaanahu wa taala la ñu ngi koy sant ci loolu mboolem loo xam ne it jàdd na ci aw yoon ci aji leeral ji la ñu ngi koy jégalu bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nanguñ ñu ah, di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa